Ahmed Daf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. voilà Ahmed Daf nga nekk administrateur bu centre Delossi bu Rufisque euh, ngeen di euh, jàppale ñi nga xamante ni dañoo am feebaru xel euh, mbir mi naka la ñëwee ba ngeen sos centre bi exactement. waaw loolu moom centre bi. yéene la woon depuis ba may nekk xale. dama yàggoon bëgg ni suma màggee. ginnaaw tabax benn kër boo xam ne. pour ñi nga xam ne kat dañu am feebaru xel nekk ci mbedd bi ñu am kër goo xam ne dañ fay dañ fay dëkk. léegi si euh, kaw loolu ni may gën a màgg di gën a màgg di gën a gis ni ñi am feebaru xel mooy ñi nga xam ne àdduna wër ngi dañ leen fàtte ci lépp ci programme bu ne rawatina Sénégal biñ ne ak Afrique bi biñ nekk nii li li may gën a màgg di gën a gis ni ñoom ñi nga xam ne seen jàngoro. mayu leen ñu mën a taxaw euh, wax leen metti seen jàngoro mayu leen ñu mën a taxaw xeexal seen bopp seen ak seen yelef donc ñoom ñoo gën a mën a jara taxawu te ñoom ñoo gën a soxla ku leen taxawu ndaxte ñoom ñoo amul kàddu donc moo tax ma jël sama kàddu jël sama lépp euh, jox leen ko. d'accord léegi mbir mi naka lay demee exactement naka ngay récupérer malades mentaux yi. te soo leen récupérer yóbbu leen centre delloo si naka lay demee exactement jàppale bi. waaw fii euh, ça dépend moom ça dépend si euh, cas benn actuellement fi ñu toll nii euh, xale yi ñooy privilégié ñoom la jël nombre bu munti doon jigéen bu wérul wala koo xam ne danga am feebaru xel nekk si mbedd bi ba pare feebar am feebaru yaram léegi kuñ ci yëg. soit su nekkee police la su nekkee sapeur pompier la wala benn as kenn askan moo ñuy oo téléphone ne am na ku nekk fii wala ñun suñuy rond suñuy dem def tuur yi des fois di yóbbul lekk ñi si mbedd bi euh, suñ si gisee kenn lañ lay jël euh, noonu lañ lay jëlee si mbedd bi mais fii ñi nga xam ne xamuñu seeni waajur yi la ñi xam ñu si mbedd bi léegi ku ñëw dañuy fexe ba wóolute am parce que loolu moo pas solo lépp. moom la ñu naan ci tubaab ah, la mise en confiance wulte euh, tànk amul euh, mënoo mënoo dara mënoo def dara léegi maintenant ku xës ba ñëw day am ay mbir euh, benn bi mooy jéem gëstu ba xam kan mooy famille bi kan mooy njaboot gi maintenant nag mun nga gis njaboot gi fekk ni njaboot gi ñoom dañ doon ko wër boobu pour que mu ñibbi këram day yomb des fois tamit. nga gis njaboot gi fekk ñoom xamoon nañ mu ngi si mbedd bi wante ñoom ñoo dem ba xam ne mënatuñu ko yor cas yooyu na il faut nga téye nga téye fii naxante ndànk-ndànk ndaxte amul benn euh, munoo imp munoo forcer benn njaboot ne ko kii sa doom la jëlal nga téye ko ñi si wax ji naree bëri dina leen ne waa indi ko soo ko bàyyee foofu soo xëyee suba ñëw doo ko fekkaat wala soo ko fa bàyyee. Euh, kenn du ko sango lekk bu baax kenn du ko jox leneen nax maanaam dañ koy seet dañ koy bàyyi noonu moo waral ni nag ñun ñooñ la gën a faral di téye fii suñ leen téye fii nag lépp lu waajur war a defal doomam war a defal njabootam dañ leen koy defal muy si euh, sangu ba set lekk lekk ba suur euh, naan ba màndi surtout surtout tamit reetaan ak xaxataay parce que suñ kilo bi si solo mooy mooy fexe ba nga xam ne ñoom ñu mën a am dundun bëgg dund boo xam dañuy bëgg loolu dañuy bëgg dañuy bëgg dañuy bëgg fii amul fay amul euh, kenn koo xam ne dangay ñëw par exemple signé le contrat ñëwal fay lii pour sa doom nekk fi de fii loolu amu fi léegi bërëb bi fànn yii la ñuy def mooy aar iir euh, ak toppatoo comme waaju woo waajur Euh, léegi Ahmed Daf euh, mbir mi mbir mi ngeen di def euh, yombul dafa laaj ay moyens ñan ñoo leen di jàppale si côté xaalis beeg ñoom seen. waaw mbiru jàppale ñu may commencé mooy sama waa kër parce ba fi may wax ak yow ni chaque jour añ bi sama kër lay jóge chaque jour bool bu mag a mag mooy jóge sama kër ñëw pour que ñoom ñu mën a ñu mën a lekk su dul loolu su ma jógee si ñoom. am na ki nga xam ne moo doon préfet bi fii nii euh, mooy pare delloo centre bi mooy euh, sëñ Babacar Kane mooy gouverneur Sédhiou actuellement euh, am na tamit IDAH bu Sine Ndia fondation Sococim askan bi des fois nit ñëw jaafi indi andi fi wante dundin bi daal li ma gëmoon depuis ba depuis ba ma koy teg. mooy bés bu ma demee ba amatuma dara lu ma leen dundalee taalibe yi gënuñu ma ma jël sama bool dugg ci kër yi saara añ saara reer euh, indi leen ñu lekk des fois tamit euh, Sénégal xew-xew dafee bari ma toog dégg xew-xew am na fee ma bàyyi ba heure añ ba dem fekk mairie di defar ma jëf ma yor samay mbuus dem ci mairie euh, ñu defaral ma ñu may ma defaral ma indi jox jox njaboot gi ñu lekk ndaxte bërëb bi. depuis le début laa wax dara muy que lu mu metti metti metti metti kenn du dégg fu ñu lancé appel don wala appel aide euh, li ñu gëm suñu lancé mooy fexe nu ñuy jox leen seen ax ak yelef loolu la ñu nekk di laaj lu ñuy jéem mooy nit ñi bët bi ñu leen di xoolee mu mën a changé lu ñuy jéem mooy fexe ni ba nit koo xam ne fi nga juddoo sa waa kër gënañ la mën a taxawu suñ ko mënul waa koñ bi dinañ leen jàppale pour ñu taxaw la suñ ko munul waa quartier bi ba si commune bi ndaxte place wu nit ku muti doon si njaboot si njaboot si njaboot si njabootam la donc moo waral si suñu ponk yi ñu xeex ñun bu si ëppal solo en dehors de sensibilisation yooyu mooy fexe ba ñu jox leen seen àq ak seen yelleef ma yokk si beneen mbir. Mhm. sànq waxuma ko si nasaraan. waaw si gis si ñoom léegi am nga dossier psychiatrique parce que damay jël fii comme ni nga jëlee sa doom yóbbu hôpital psychiatrique ñu consulter la ñu bindal la ordonnance su waree at nga ñëw def ko jënd ordonnance ba pare di leen jox seen garab normal rendez-vous su jotaate nga jëlaat taxi yóbbuwaat leen hôpital indiwaat leen. Mhm. voilà léegi euh, Ahmed Daf est-ce que euh, comment dirais-je ñu gis ni euh, si si fin d'année bi si décembre bi nii euh, da nga organiser ay ay ay activités pour euh, ñi am feebaru xel activités yooyu naka lay demee exactement. waaw jë jërëjëf Maodo ci question bi. activité bi nekkul dara comme euh, décembre nu mu jotee. Hmm. comme waajur bu ne. li ngay fexe bégal bégal say njaboot bégal say doom euh, gis nañ ni ci àdduna wér na pëpp euh, at bi suy waaj a jeex da ngay gis si école yi si euh, kër yi ku nekk yaa ngi fexe bégal bégal bégal bégal sa njaboot ñun tamit moom la ñuy def moo waral le vingt cinq incha allah comme ni ñu ko defee woon dañ leen di defal benn benn yendu yendu rek su daa de arbre de Noël yendu bi euh, dinañ fexe ni ñu ñëw wayal leen bégal leen jox leen ay jox leen ay cadeau fexe ba nga xam ne dina nekk bésu boo xam ne mbégte lay doon ci ñoom ñëpp noonu ñoom ñëpp dinañ mën a ko dinañ mën a kontaan su ñu jugee ci bés boobu noonu euh, ñu xam nañ tamit euh, li ñuy naan guddi bi nga xam ne lay at bi di jeex xew-xew yi day bëri ñun tamit. Euh, dañ leen guddi gi dañ leen dañ benn comme li ñuy wax ci olof genre baal boo xam ne ñoom ñoo fiy nekk euh, ñu bégal leen guddi si yëpp ñu ñu paase ko euh, reerandoo feccandoo kafandoo reerandoo ndaxte ñoom dañoo bokk si ñun te nit ñeneen ñi li ñu war mën a def rek ñoom war nañ ko mën a def donc loolu noonu lañ fas yi lañ fas yéene lañ fas yéene def incha allah rabbi Euh, tey ji am na appel boo bëgg a njiitu réew mi par rapport ak situation wu ñi am feebaru xel fii ci Sénégal parce que bari na ñi am feebaru xel rawatina ñi am feebaru xel ba pare euh, di taxawaalu si si mbedd mi. waaw jërëjëf li may lancer njiitum réew mi muy président de la république son excellence monsieur Macky Sall euh, mooy que ni ñun delloo si am nañ benn programme boo xam ne. ñu ngi ko tuddee santé mentale de proximité boo xam ne moom su si amoon portage institutionnel maanaam moom su ko porté woon euh, du d'ici benn at rek Sénégal wër këpp ba si yenn Afrique sax doo amati kenn ku am feebaru xel ku nekk si mbedd bi doo kenn ku am feebaru xel di dund yenn dund yu te loo xam ne laajtewul xaalis bu bëri parce que approche communautaire la maanaam. Euh, si commune si quartier bi la si commune bi euh, dem ba si département bi dem euh, romb ville dem ba si département bi te loo xam ne du loo xam ne dafa gar lu mën a nekk la loo xam ne mën nañ ko teg lu mu der day mel ni tey exemple da delloo si tey fi mu nekk bañ fi nekkee ba léegi amul kenn ku ñu mës a dégg ñu yuuxu wuy walloo te pourtant ñi fi nekk ñu ngi lekk ñu ngi naan ñaata at benn nit moo doon fanaan ak ñoom te tey mu ngi changé. donc lu mën a nekk la maanaam approche la ak communication ak tamit njiitu réew mi mën ko porter et que euh, profité une fois de plus euh, di di waxtaan di oote di oo benn appel ki nga xam ne mooy yaayu Sénégal yëpp ñu koy naan première dame euh, Marème Faye Sall di ko xamal ni tamit ñi am xel si njabootam lañ bokk te puisque jëkkëram. Euh, borom këram muy son excellence bii di ñëw du bokk bokkul ci joŋante yi euh, c'est l'occasion bu fexe ñu porter benn combat ci moom pour que ni a ñu fiy jóge une bonne fois pour toutes euh, ñu changer dundinu ñi am feebaru xel fii ci Sénégal ñu changer gis-gis bi nit ñi am ci ñi am xel fii ci Sénégal te gëm nañ ni su ko ki nga xam ne mooy yaayu ñëpp. taxawee forte ko incha allah rabi une semaine rek la rek la ñuy may pour que kat ni ñu commencé changer gis-gis ñu commencé commencé waxtaanee seen i mbir ñëpp commencé bàyyi def fulla si si seen si i mbir euh, si seen mbir. Hmm. Euh, ok di tamit beneen appel. waaw par rapport ak les candidats à l' élection waaw Ahmed. Euh, j'ai eu à saisir certaines ñenn si ñoom. seen programme yi ma si lire ñuy présenté. Hmm. il parle de santé en global alors que ñi am xel ils sont spécifiques et que ñoom ils ont vraiment soxla nañ carrément benn programme spécifique pour ñoom te ñi fi jot romb ba léegi mënoo ko gis pour l'instant moo waral ci campagne yi ci pré campagne képp ku ciy wax ba am loo wax ci ñoom parce que ni ci seeni xel li fi newoon rek a fi war a ne ci seeni xel. si seeni doxalin ñii bokkuñu si askan bi te ñu bëri suñuy wax si ñoom sax waxu social la ñuy wax alors que ñoom dépassé nañ cadre social dañu am ay àq am ay yelef nekk ay doomu aadama bokk si ministère de la santé parce que am nañ feebu xel bo bokk si ministère de la jeunesse de l' emploi maanaam ministère boo laal rek ñoom dañ fa am pàcc donc maa ngi lancé appel solennel si candidat yëpp ñu bàyyi xel ci ñi si seen i po si seen seen i programme di ñaan tamit yéen journalistes yi ku si am euh, invité boo xam ne euh, candidat la ngeen fexe euh, ba mu ba ngeen laaj ko lan la fas yéene tey su jëloon réew mi par ba si te très court terme nan la fexe pour éradiquer wala ban solution la am par rapport ak doomu aadama ñii nii nga xam ne kat. non seulement dañoo feebar ñu ngi dund ci mbedd yi di lekk ci poubelle yi muy muy sedd muy muy naaj euh, ñu ngi ci mbedd yi seen cër yi mu ngi ci mbedd bi. waaw kon Ahmed Daf euh, maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. Uh, may fàttali ni Ahmed Daf euh, yow yaa nekk administrateur bu centre Delossi ba nekk ci Rufisque di jàppale ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf.